ay coow yu bari ñu ngi jub boobaak léegi fii ci Sénégal gannaaw ba mbirum viol boole ñi nga xam ne ñoo di Adji Sarr ak Ousmane Sonko pour taskatu xibaar yu bari nag ak ñile nga xam ne ñu ngi teewee procès yi ci tribunal yi lile jàppewuñ ko lu dul benn simple procès. ce qui s'est passé à Sweet Beauté c'était euh, affaire viol la

qui nga xamné modi euh, procès du début à la fin man 6 heures du matin sama sama ma tribunal 8 h 3 heures du matin passé na si procès de bout en bout ah, assisté du début à la fin euh, euh, devant la chambre criminelle adjissar Ndeye et les témoins j'ai tout assisté. daanaka mën naa ne saay bu ma génnee si bi rek dañoo ne pose ci coow yu jot a jub jour boobu fële ci tribunal bu Dakar bokk na ci kàddu yi nga xamante ni moom la docteur Alfousseyni Gaye yëkkati di gynécologue bu saytu woon Adji Sarr ci coow yu jot jub jour boobu ci tribunal bu Dakar bokk na ci kàddu yu docteur Alfousseyni Gaye yëkkati di gynécologue bu saytu woon Adji Sarr gannaaw nag ba ko taskatu xibaar yi fësalee moom Alfousseyni mujj na weddi yooyu le kàddu tey joxoñ baaraam tuuma taskatu xibaar yi muy lu leen nakkari lool. la ci la mu ci wax mooy li nga xamante ni moom la ci journaliste yi wax moom moo ñëw à la barre ñu koy expliquer expliquer na na moom déjà d'abord c'est la première fois si si afim si mbir mi nit ñi doon door a xam ni moom otoom moo jëli Adji Sarr et non oto Mamour Diallo loolu moom moo ko wax devant le prétoire. que moom moo dem jëli Sidi Ahmed Mbaye and ak Sidi Ahmed Mbaye ñu dem jëli ki nga xamanteni mom moy mooy Adji mais mom duggul ci salon bi ci bunt bi la taxaw Adji Sarr génn ñu yapp ko. c'est ça c'est dafa né dama ko yóbbu euh, laboratoire hôpital général Idrissa Pouye ñu ne ko résultat euh, prélèvement bi lan la joxé mëna d'après l'analyse il y avait des superbes vivants mais bu ñu ko nee superbe vivant kan moko mom mëna mun a ñu ne comment on peut avoir le superbe sur quelqu'un dafa né mëna nek injection volontaire.

daanaka même kàddu lañu indi. amoon nañ fa jour boobu Doudou Diop wax ma la sax ci liggéey bi rek mais leneen lu dul liggéey bi rek je lui fais confiance à 1000 pour cent à 1000 pour cent. moom mi nag comme ñeneen ñaawlu nañ lool kàddu yu docteur Guèye yëkkati tey di ko teg ci ndoddu taskatu xibaar yi maxali nag àndu ci benn yoon. léegi docteur Guèye man dama jàpp ne. il se amna comme ils muy fontoo am na ku mu respecté wul am na muy wut mais ñemewul justice balen di nax parce que je te le dis moi j'ai vu l'ordonnance de renvoi du juge l'ordonnance de renvoi du juge euh, du et des juges d'instruction Omar Maham je l'ai vu je l'ai lu li mu waxoon ci kanamu barba ba pas di ko dégg mom peut-être mi dina ma sétane dina ma dégg mom la fa moom moo wax ne bi mu seet euh, xoolee awra aji sa biñ ko bi mu waxee ne dañ Ousmane Sonko da koo sàkku ba pare fekk na ci ay man yu te am na ci yu dund. moonte bari na lool ay journaliste yoo xam ni ñoo yëkkati même information ñoom ñëpp ñoo bokk ci kàddu yi ñu wax ni docteur Alfousseyni moo ko yëkkati loolu tax na maxali jàpp ni ñoom ñëpp mënuñu booloo jum la presse ne se tromper l'observateur sax <laughs> peut-être que mes gars sont trompés. ça fait plus de six ans qu'on couvre euh, les procès on ne fait que rapporter les faits li nga déclaration devant le prétoire ki juge bi le procureur avec les avocats des différentes parties duñu ci yokku duñu ci duñu ci wañi bu fekkon loolu dafa am ñu trompé on allait faire une préfé pro euh, une note de d' du ma wax ay démentis wala loolu on allait s'excuser auprès du médecin on allait euh, s'excuser auprès de nos lecteurs xam nga la wax parce que ñoom on leur lu dédé on leur doit la vérité. pour ñom taskatu xibaar yi nak docteur daa duggal bopam ba paré bëgg ci génn tey xamul nu muy def loolu waral mu di leen di tuumaal. juge bi bu koy posé question question juge bi nag moom moo ko xaw a daal li yàlla di def mooy moom mooy le seul témoin boo xam ne dafa ñëw ne juge bi laaj ko ne ko comme Ndeye Khady Ndiaye ne parle pas français les débats sont en wolof mu ni moom il n'est pas à l'aise en wolof mais il est à l'aise en français donc il est le seul et je dis bien le seul témoin bu nga il s'est exprimé en wolof en français autant pour moi en français autant pour moi te bu nekkoon euh, trahir ses propos xam nga bu nekkoon dafa wax wolof, ñu trahir ñuy traduire sax trahir ses propos dinañ ko mën mais français la lac, médias euh, nationaux yi ak les médias étrangers ñëpp ñoo bind la même chose. avant procès bi def na plusieurs sorties mais il n'a jamais tenu de tels propos. ci kanamu juge nag jafe na lool nit wax lu dul dëgg. ku muus la parce que. Le faux témoignage, c'est une infraction. Il a évité de le faire. Il a évité de dire une contre-vérité devant la barre. dafa dem de wax une contre ne devant la barre. Il a na ci dire une contre-vérité dund la laboratoire laboratoire moom bi la mais il a fa ni docteur xamone nako bu baax ba waral fa wax pour journaliste yu bëri nag docteur dafa xawoon mel ni ku perturbé daanaka bi mu doon wax sax nànk la doon jéem a wax waaye loolu terewul taskatu xibaar yi jox ko nopp tey bàyyi xel bu baax ci lépp lu mu doon wax tax na nag ba dara rëccu leen. docteur Gaye dafa waat ne day wax dëgg foofu dëgg la fa wax peut-être que bi mu génnee nag xam nga la <laughs> la machine virtuelle la de Pastef la pour nga dekk ko yombul. c'est plus facile de dire que nous, nous avons menti, sachant que nous avons dit la vérité, que de faire face à cette machine. Nous, on fera tout, beaucoup mal à cette machine, ça, mais à autre chose. Comment boy demande nga né euh beut kessé mënul gis man yu nous waxuñu ko gis ñu on a jamais dit ça ñun mësuñu wax lool li ñu wax mooy ma ne lii la wax moom la ko fekk yàlla dimbali ñu ñeneen wax ko pour ñom nak mel na ni melokaanu docteur Djilé dara sababu ko lu ab titangé ci dossier bi. peut-être c'est pas il a subi de la pression wala amna lu xew wala mu xam ni moom peut-être sa déposition deful la meilleure des dépositions mu ñëw bëgg c'était le jeter le discrédit sur les journalistes non ça ne passera pas. man fa la comprendre sa situation interview ba mu accordé Kéwoulo TV dafa ne ñu ngi koy persécuté ñu ngi menacer menacé mu ngi dund lo xamante xamuko jamono ji dégg naa sax moom dem na ba bàyyi liggéeyam ñibbi na pour sa sécurité ma bu xalaté lo yëpp mu nekk devant la barre avec autant de pression autant de questions De balaa muy commencé ñu ne da ngay jël serment nga wat ni bu fekkente ne li nga fait un faux témoignage mu nañu mu nañu la cité. toute cette pression là te nga xamante c'est une personne effacée Leur ça peut comprendre lo xamante en piège yoo xamante euh, nañ ko ci question bi ba indi réeróo bi yëpp ba mo mu def mise point te ñu gis beneen faux document bi tamit buy surga ñu ne docteur euh, Alphousseyni Gaye dem a démenti tout ça. nañu arrêté di jeter le discrédit ak en les journalistes nañu arrêté di ko def capitaine Touré moom dafa waroon a jàng ci courage du capitaine Touré ak le courage de la de la dame capitaine Touré dafa ñëw def Ndeye Khady Ndiaye dafa waroon jàng ci loolu c'est un c'est un homme de l'art nay nay jàng loolu di assumer ses responsabilités. ñom taskatu xibaar yi nak japp nañ ni dara du len tax def seen liggey ni mu waré donté sax docteur yëkkati na ay cadeau ñom ñilé japp nañ ni defuñu lu dul seen liggey mom mo wax li xey mo wax lale moom dugaluñu ci dara de mom mo dugal bopam kuy sa cadeau boko jëlé bakay wax da nga koy assumer ñun ay journaliste lañ on fait de l'information on cherche à plaire à personne nekkuñu fi tamit pour ji yakal ken lépp lu ñuy def dañ koy ji ma teg ci ay fee ay dëgg lii ñuy def suñu métier la ñu ciy dund di ci euh, dundal suñu njaboot. docteur Alfousseynou nag jëm nañ ko oo ngir mu teg ñun wax ñu tuuti ci dossier bi ak li nga xamante ni moom la teg ci ndoddu journaliste yi waaye jamono ji kenn mënu ko jot.